nee na président de la République bu fekkee ne teggiwul tànkam. ministre am yi ñàkk xam na amul dara lu muy rëccu. nee na ministre yoo xam ne ñàkk ra euh, loo xam nee na amul dara lu muy rëccu. suñu teggiwul seen tànk ñoom suñu teggiwul seen tànk ñoom. nee na dinañ yóbbul Sénégal musiba. parce que luñ bëgg nit ñi mënuñu ko nangu de. nee na Sangalkam li ngeen di def ñu ngi leen di encouragé ngeen continuer di ko def. nee na aussi duñ ko wax rek toog fi tey ci kër gi rek di ko wax rek toog di leen seetaan. nee na wax na ko démb Fatick fu mu demoon. nee na li xew Sangalkam wax na ko démb Fatick ñu ngi leen di xaar jaxaw ñu ngi leen di xaar feneen ak feneen te ñu nangu li ngeen bëgg a def kon c'est pas l'appel ñu demate élection bu fekkee ne dañu dem élection nit gagné population bi jël seen bopp fal ko ko. wala ñun yow nga toog ne rek ci biir climatiseur rek nga ne yor naa décret dama koy folli. nee na ba pare ñu naan ñoom ñii nañu rey benn nit pour ñu tiit. nee na yaakaar na ne moom mii képp ku taxaw nga xam ne na rey rek mooy sa yite xëy na sa avenir soreetul. kon nag moom président Macky nee na ñu ngi leen di jaale